nangu li xam ne moo di troisième mandat. Mhm. du ñu nangu yenn suñu réew. tey Barthélémy moomu moo dem wuy ji dialogue Macky sàll mhm. mais dafa wuy ji rek dialogue bi rek la wuy ji. Mhm. mais lan moo fi indi waxi trahison moom nee na am na trahison moom Barthélémy nee na gisu fi trahison am na droit dem ànd ak ku ko neex. waaye ci ngay xam ne def na li muy def ba pare Barthélémy Dias li mu def euh, xëy na Sénégalais yi lii rek lañ mën a gisagun mais def na li gën a pire loo xam ne nit ñi Sénégalais yi xamaguñ ko. sénégal yi xamaguñ ko te Barthélemy Dias gis nga bis bu yoree réew mi réew mi dana metti parce que moom rek moo fi nekk koo xam ne aussi euh, moom rek moo mës a tiim nit dóor bal nit dóor bal nit mu dee. ci ah, politiciens yi mais mais mais image yi. parce que euh, mi ngi fi jël na waaw di tiire loolu loolu loolu nekk na loo xam ne aussi. Euh, man pour man li mu def nii mën na am mu nekk loo xam day rawale day rawale bopam gis nga tamit fii ñii ñu bari seen intérêt lañ fi lañ lañ lañ doxal parce que euh, war nga xam ne tey ni aussi buñ la buñ lay topp ci wàllum yoon wala mu leer na la yow buñ la top ci wàllum yoon man nañ la yakal sa lu bari yaa may dégg. Mhm. faaw nga xaw am no def ba xaw am tuuti doo la ñëw ranger ci pouvoir bi. Mhm. moo tax dafa dafa dafa xaw a cuune fi mu cuune mooy. Mm-hmm. warul woon a warul woon a génn di tontonteeg ñi nga xam ne tey jii ne ñoo ñoo ñoo nekk ci ci ci TikTok bi. Mm-hmm. ah xam nga naan ñi nga xam ne ñoo ñoo désabonné wu ñooñu ñooy saagakat yi di tontu daal mel na yow Ousmane Sonko sax waxut ak moom. Ousmane Sonko ba nii tontuwu ko moom day jël ci kaw kàddu Ousmane Sonko yi muy wax mu ñëw di tontanteeg Ousmane Sonko te Ousmane Sonko tuddul turam maanaam ku moom ku moom xar mi rek. nga bàyyi mën na bañ a tudd turam mais euh, barki démb mu defee sorti nee na waa ji yow xale nga. Mhm. am na loo xam ne dara warul la koo jaral. Mhm. c'est-à-dire euh, ñëpp nee nañ euh, bi parti boobu dañoo jël photo ki xam ne moo di euh, Barthélémine. Mhm. daal di koy collé ak wax jooju noonu mu mel ni que même bu sonk waxu ko yow Barthélémine Diaz waaye am na wax yoo xam ne Serigne Gaynde Fatma wax ju egg ju ne dafa ko moom. Mhm. da ngay dégg mag ñu bari nang la wax ju egg dafa ko moom. parfois nga toog ak nit mu lay gaaral du tudd sa tournée di nga xam ne lii muy wax bu la génne rek yow la. waa xam jamono ji. Euh, ku xam réew réew mi ni muy doxee da xam ne jamono ji gis nga nit ñi yeewu eh, do euh, du ñuy dof te yeewu nañ fii ñaar ñu fi dëngoo xam nañ ñaar ñu fi juboo xam nañ. Mm-hmm. Euh, diggante bu war a tax nit ñi dañuy xam diggante bu neex nit ñi dañuy xam jamono ji moom Ousmane Sonko ak Barthélemy jaas ñoom ñaar seen diggante neexul. Mm-hmm. te kon bu Ousmane Sonko génnee wax rek xel yi day dem day dem ci ci yu bari. Mm-hmm. waxam yépp dañ naan ah wax ji da Barthélemy Dias moo ko moom. tey jii nii Barthélemy Dias bu génnee wax tamit dañ naan. li wax ji Sonko moo ko moom. Mhm. donc moom na xalaat ne wax na fi ne euh, na gaay na gaay bàyyi ne ginnaaw yàlla li mu am ci politique bu dul woon Ousmane sunk du ko am moom génne na weddi ko na man dama ko doon xeexal rek mais loolu moo am parce que ay jamono yu yàgg avant muy ànd ak Ousmane Sonko. ma bëggoon naa am quatre vingt quinze pour cent sax mais pour mu am cinquante pour cent sax day day day day jafe bi mu demee ba gën a am doole bi mu ànd ak Ousmane Sonko ci Yewwi ci la gën a ci la ko yàlla gën a mën a mën a kii moom nag na xam ne tey jii nii bu toogee ci barke toog ci teraanga toog ci ay privilèges am yu baax na xam ne ginnaaw yàlla Ousmane Sonko la te doomu aadama amul lenn loo xam ne suñu borom dina ko jox doomu aadama muy wàcc di ko jox képp kuy suñu borom jox suñu borom du wàcc. ñëw jox la loxo loxo suñu borom day am ci ñu mu koy jaarale. kenn ku ne da ñun ñi buñ toogee fii ginnaaw yàlla di wax ci barkeb Serigne Touba la ñuy toogee di wax. Mhm. bu dul woon Serigne Touba ñun duñ am jàmm bu dul woon Serigne Touba ay jàmm la ñu doon. nit ku ne am nga barkeb boo xam ne ah, ñeneen. nit dina ñëw mais est-ce euh, demul ba dugg fa parce que tey euh, ak lu mënti am euh, muy xalifa Sall muy Barthélémy ak lu mante am. Mhm. ku dugg yeewi Ousmane Sonko moo la jiitu. Mhm. yow da ngay topp ci kanamam. noo manti mel dangay mën a nekk ci ci ki xam ne mooy derrière Ousmane Sonko. Mhm. aussi est-ce que duñu pose foofu jalousie commencé dugg moom Barthélemy nu mu mel ba mu dalee ba mu dalee euh, ba mu dalee def politique ba léegi euh, tey bu gune gu ndaw euh, daal di koy jiite ci ca lam nekk kon bu ko président Macky Sall pour mu amaat doole pour mu relever jugaat. Mhm. jot na mu dem wuyu ju dialogue boobu noonu tey. waaw mooy li ma la wax gis nga yeewi ay ponkal ñoo fi ñoo fa dajee waaye gis nga nit yàlla day def ci moom loo xam ne Ousmane Sonko yàlla def def ci moom loo xam ne euh, maanaam maanaam fépp fu mu nekk loo am daraja am daraja darajaam day nëbbu sa daraja. Mhm. mais nag yeewi ay ponkal ñoo fa nekk. Mhm. ay xalifa sàll mhm. ay Barthélemy Dias ñoom Barthélemy Dias dem na ba xam ne moom mi daa war a génn am dara te Barthélemy Dias bul yaakaar ne. nii nii nii ñuy wax dañ naan Khalifa Sall rek la bëgg a jiital mais dana dem ba jëmmi moment. Mhm. yaa ngi may dégg dana war Khalifa Sall ñëw posé candidat Barli Dias xanaa xamoo ne da wax na ba ne li mbëtt bëgg moom la bar bëgg. Mhm. kon barli Dias xelam mi ngi nekk ci jiite nguuru Sénégal. Mhm. xelam xelam ci loolu la nekk. te loolu moom xel xalaatu ko ndax yow mi téye nit di dóor ay bal. ay di ko dóor ay nit. kooku bu réew mi kon xamu fuñu ñu jëm te Barthélemy Dias esprit dafa nekk dafa toll esprit esprit américain la yor. maanaam mënut Senegal, yor Sénégal. bu yoroon Sénégal fii bu yoree Sénégal fii day bari dañ lay dangay dangay génn ci mbedd bi rek dóor la goon ñu dóor la bal bu yoree Sénégal non Barthélemy Dias bu yoree senegal déggoo la ma la wax da ngay gis ku ku ne jekk ku ne yor goon da ngay génn ci mbedd mi nga wax benn baat ñaar ñu ne la nga wàcc man maa la ko wax Barthélemy Dias esprit esprit am te boobu pare xadar lay waxee Barthélemy Dias amul yërëm maanaam dëggu na nit ki gis nga nit ki nit ki gis nga nit ki gis nga nit ki mhm. loo ko bañ bañ waxal dëgg ci moom mhm. gis nga euh, gis nga ku dëggu la ku am fit la mhm. dëggu na am na fit waaye affaire politique da ciy rax affaire politique mooy warante jukay caay-caay am na ko bu la bëggee xeexal mën na la xeexal ba nga am ndam mais bu la bëggee bàyyi da lay bàyyi Barthélémy Dias looloo looloo ko jàpp mais dama ne Barthélémy Dias fit wi mu yor ak jukay américain bi nga xam ne moo nekk ci moom tey jii ni si bu yoree Sénégal Sénégal day gën a tar ab Sénégalu Amérique nga fi gis da ngay génn ci mbedd mi rek ñu dóor la bal nga wàcc lu la yar la wax parce que moom rek moo fi nekk koo xam ne tey jii ni moom mooy politicien boo xam ne moom moo yor bal di tiire te loolu njiit ak royukaay war war na ko mën a bañ. Mhm. moo tax ma ne la Barthélemy Dias boo xoolee waxam yëppam yëppam yëppam xool nu mu jiitee Sénégal moom moo ko tax a jóg. kon Barthélemy aussi pare na pour waral sax président Macky. pare na pour war pour pour ñëpp parce que dafa am loo xam ne yow yow euh, Ousmane Sonko waroon naa xam ne Ousmane Sonko waroon naa xam ne. yow ki nga andal wajurum bu góor moy conseil présidentiel ah moy conseil président de la république mm-hmm. ah te mm-hmm. Barthélemy Dias keur bir keur wajurum la dëkk mm-hmm. te kenn ko ne xam nga ne diggante lu lu diggante waajur ak dom ni mu mel tey jii nii sa wajur bu ne li la bëgg nga def ko li la bëgg nga and ak man wala rangé wul ñew fi ma nek da ngay rangé wu gis nga nit lo and ak mom and ak mom ànd euh, mook mook waajuram euh, euh, ànduñu rek na la la en même temps bis mën na ñëw rek mu dem ànd ak mu ànd ak waajuram voilà moo tax moo tax moo tax ma ne la moo tax ma ne la Barthélemy Ousmane Sonko waroon naa mën a xam ne Barthélemy Dias mi lu mu yàgg-yàgg day dem yoonam te Barthélemy pare na pour war Macky pare na pour war Khalifa Sall pare na sax pour jël réewu senegal mais loolu moom bu bu bu amee rek réew mi moom dana dugg ci guuta li tax ma ne la réew mi dana dugg ci guuta moo moo Gaston mm-hmm. day génn di wax Gaston Mbengue yal na ko yàlla euh, defal tawféex yàlla may ko wér mm-hmm. ba mu mën a ba mu a mm-hmm. a mooy li nga wax rek gis nga naa la xamal leen na euh, Barthélemy Euh, Gaston Mbengue yàgg naa génn di wax ne ñi sant Dia sax waruñoo jiite ba mu ko waxee nag waruñoo jiite Sénégal ba mu ko waxee nag wax ju xaw a xorom la. Mhm. wax ju xaw a reetaanlu la. Mhm. waaye fa mu waxee ñu bari Gaston Mbengue dégguñu ko. Mhm. moo tax Gaston Mbengue jamono ji euh, maanaam euh, kii ñu bari yaay na ñu bari parce que taxaw na fi ne ñoom ñëpp kenn bëgg ko si kenn bëgg ci Ousmane Sonko. te loolu mooy li am. te dama bëgg xam ne damaa bëgg ngeen xam ne Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ne aussi jamono jii may wax ak yow yàgg naa fee wax ne bar euh, Ousmane Sonko bakkanam laa gis mu rot loolu damay damay damay ñëw di ko waxaat. Mhm. bakkanam laa gis mu rot. te 2024 yi nii nii nii nii man euh, sama sama sama xam-xam li ma yàlla wan dafa dafa dafa dafa doy waar daal nañ ko ñaanal yàlla tànk maanaam euh, génnewul ay sarax yi nga xam ne tey jii nii suñu borom moom la ma wan wala préparé wul ci boppam ci wàllu ñaan yaa ngi may dégg ñaar dina am. soit dina ko fekk bàmmeel soit dana ko fekk ci biir kaso hmm. lii man maa la ko wax ndax gars yi dañ ko sonal gaa yi dañoo nekk ci kawam ci mbirum baatin hmm. ba pare man mënoon naa laa wax ne la fii dakaar fii am na ci yenn kër yoo am na kër goo xam ne tey jii nii ña fa nekk ñëpp ay sëriñ lañ sëriñ yoo xam ne tey jii nii lu leen tax a jug mooy kaw Ousmane Sonko moo leen tax a ñu nekk ci kaw Ousmane ko te ñii façon dëkk bu ne lañ jógee façon làkk bu ne la ñuy làkk façon sëriñ bu ne ñoo xam ne lu ñu la wax ci mbirum euh, xam-xamu euh, ilmul adat ilmul xuruf ilmul xawaatim ilmul lasraar du dañ ak ilmul nujum moo tax ma ne la man yàgg naa fee toog ne Ousmane Sonko yàlla jox na ko nguur nguur gi leer na naññ mais nguur gi dafa am ñuy dox ci diggante moom ak nguur gi. ñoo xam ne ñoom ñoo koy yàqal ci lu bare bare bare. tey jii nii bu njëkk Ousmane Sonko da daan génn sax wala juge bi woo ko sax nga gis biir wi am problème am mais da wax naa la ko démb nee naa la bi mu ko bi ñu ko commencé woo ci chiffre 4. gis nga euh, nguur gi dañoo foor ci côté boobu ci mhm. mbirum euh, xam-xamu adat mooy ilmul adat maanaam euh, dañoo xool ne Ousmane Sonko buñ ko woowee ci chiffre 4 baaxul ci moom dina am jafe-jafe te xale yi dinañ leen noot. Mhm. xale yi xanaa xamoo ne léegi li gën a doy moo am ci réew mi mooy xale yi daan yëngal nii mhm. léegi mënatuñoo yëngal ah, ndax dañ leen a noot li leen def ci ndox mi lañ ko def ba réew mi dootul yëngooti te mën nañoo jàpp Ousmane Sonko tëj ko def ko lu ne te xoolal bant xaddu damm. dara du tàkk waxoon naa la ko fii réew mi da yàggoon naa fee génn na la réew mi mën naa tàkk ci ay jamono ci ay moment ndax wa axsee kullu say in adada alxuraan moo ne lépp rek suñu borom moo ne lépp rek manque tënk ci ay chiffres ndax chiffre ci ngay mën a xamee nit sa téléphone bii tey jii nii boo bëggoon a jot nit dangay ñëw dugg ci 77 nangam nangam nangam nangam lépp suñu borom da koo tënk ci ay chiffres àdduna bi chiffre la moo tax ma ne la buñ xoolee Ousmane Sonko biñ jëlee chiffre 4 4 fois 2 huit la lay jox biñ ko biñ ko biñ ko convoqué le huit gis nga dogal bi ci am. Mm-hmm. ñu bari xel yi nee nañ sawaay du bokk. Mm-hmm. yaa ngi may dégg ba pare alamaan ko deux cent millions. ba pare ñu jël chiffre quatre fois quatre. Mm-hmm. quatre fois quatre muy seize muy procès. Adji Sarr bi te procès Adji Sarr bi nguur gi ñoom dañoo aay dañoo dañoo am xam-xam ci mbirum baatin am na ay sëriñ yu leen di ñaanal yoo xam ne macha allah yaa ngi may dégg mais fi ñu juumee mooy dañoo waroon jël procès Adji Sarr le seize bi def ko le huit. bi wessu bu boba da ngay gis Ousmane Sonko jël bu reuy la koy la koy gaay di daan te dara du tak dara du juk mais nak Ousmane Sonko fofu la ko la ko nangulé né mom amna bop amna am mhm. parce que li tax mu am bop moy bu ñu jëloon euh, procès Adji Sarr bi yobbu ko le 8 bu boba Adji Sarr day am ndam. Adji Sarr day am ndam day gëna am ndam. Mhm. bu boba Adji Sarr day am ndam fofu ngay xamé né Ousmane Sonko yalla may nako amna lu mu euh, procès Mambay Niang le 8 sunu nee naa woon ñaari date yëpp baaxul ci moom. Mhm. muy chiffre 4 bi lañ jël bii ñu fois ko par 2 puis bii ñu fois ko par 4. Mhm. moo tax ma ne ñaari chiffre yëpp baaxul ci moom moo tax man Ousmane Sonko bi ñu ko commencé euh, convoqué ay le 8 ay le 16 nga gis mu commencé am ay jafe-jafe ñim daan àndal ñëpp di rocc ko xam nga réew mi na tekk gars yi tal nañ leneen. nit ñi sax dafa mel ne xale yi sax léegi tal nañ leneen lu dul ay affaire politique ay génn ci mbedd mi wàcc di sànni xeer ak yu ma xamul non non. Mhm. gars yi tal nañ leneen. Mhm. moo tax gars yi dañ leen a noot. Mhm. dañ noot gars yi dañoo pare ci côté boobu dañ leen a noot. moo tax ma ne la ñi jege ñi ko jege moom Ousmane Sonko nañ ko nañ ko dimbali ci wàllum côté boobu moo tax dem na ba xam ne maanaam yow. atte yi